Saran ni de da ngeen koy gis nii dafa saaraan de daa saaraan de gis ngeen li ñuy waxatee kii dama koy saran, du ma ko bàyyi dafa saaraan instant yi. fan lay dali ji kay mën laa fan lay dali ji kay mooy problème bi. gis nga bu ñu taxawal yow tamit taxawal gis nga gis nga xoolal la def muy gis ko mu police gaaw ngeen xool ndax dafa dal ci kaw nit gis nga wax. lii la ñuy wax bu ñuy waxate live en direct sur le snap de Sankara Mbaye lii moo tax ñuy wax e bu leen daw xool leen ko chauffeur bi ndax mi ngi nekk en vie ba pare e kaa leen kaa leen jàpp ci amul daw kaa leen jàppale ko waaye ndax dafa am ku nekk ci biir ba pare xool leen chauffeur bee ngi nii génn mais nañ ko nëbb nañ ko rawale ba police yow nañ ko rawale ba police yow moo gën a wóor yee nañ ko rawale ba police yow gis ngeen bu ñuy waxate heureusement kenn gaañuwul de ah waay dafa saaraan man dama ko teel a gis ba muy saaraan en ah, direct ñëpp gis ko nii gis ngeen heureusement qu'elle gagne, mais lui, camion y a des tonnes des tonnes c'est des tonnes de ciment amul frein qui kan de euh, ciment. visite technique ci kan you know dans un nit tout le temps kan moi quand jox visite technique camion